siyaare bi cosaanam moo de sunu baayi lañ doon dem di ñaanal ci xabroom benn kilifa diine moo fi nekkoon ni ngi koy wax alpha hamadi mu dekkoon dekke bi ñu wax saare njaga mu nekkoon xaritu sunu bàyyi nag yàlla def bi mu deddoo addina moom suñu bàyyi at bi bi mu ñëwaatee ñu toog fii rek ñi ko fekke boobu man man fekkewuma ko waaye ñi ko fekke góor gi jóge ca dëkk ba mu ne moom day dafa gente tey góor gi dafa gente suñu papa sunu papa ne ko e, góor gi alpha géñ naa gis alpha géñ naa la gis mu yeewu rek nag mu ñëw fekk ñi fii jóge ci dëkk boobu ñëw fekk fii mu ne tey dafa bëgg ñu ko ci xabru góor gi ci biir àll bi fii boobu foofu dëkk bi tas na ba nekk ne àll mu ne nag ñu ñu gunge ko foofu pour mu euh, dem siyaare xabru bi gaa ñi dajaloo dem fa loolu euh, cinquante quatre la biñ fa demee euh, bale foofu jàng fa yaasin bu bari ñaan léegi nag góor gi ne at bu nekkee comme que foofu àll kese la at bu nekkee balaa àll bi di lakk abur bi di fa lakkaale su ñàkk bi commencé wow rek ñu dem fa bale ko ba mu set jànga fa yaasin ñibbisi mag ñi nekkee nii di dem di ñëw di dem di ñëw ba man ma jàng dem jàngi ñibbisi ma ñibbisee eh, yàlla def ñu koy def may ànd ak ñoom léegi nag nit ñi mbooloo mi commencé di ñëw ci man ñu commencé laajte léegi eh, ban bis lañuy dem ci gente ga boobu gente la bon bo maanaa dekke bi raafna kenn nekku fa ma de leen wax e si waxtuy jotee rek ma gis oto yu ndaw yu bari ñëw su ñëwee foofu àlla la am na benn bis ndeysaan kooku waa cees la sax ñu ànd foofu oto am bi dafa gàtta e, mu yàkku fa yàkku bu métti ci ay ek léegi benn waay ne ma man ak moom ñu ne waay léegi nañ ko def rek konko xale àlla la rek ma nii laa ci duggee man bi ma ci duggee léegi dematuñ fale su waxtu jotee dañu seet ay nit ñu dem bale fa ñëw waaye ziyaare bi ñu def ko fii ñu ne fii lañ koy defee loolu euh, tàmbale bi mu ngi nekkoon 87 87 laa ko commencé euh, biñ ko commencé nag rek mu gën a yaatu nii waaye su dee ñi ko sos 54 la waaye pour mu nekk ziyaare euh, 87 la bale 54 bi mu commencé nii loolu euh, mooy 87 euh, dëkke boobu nag mu dem ba jamono ma sàncaat fa nag yóbbu fa ay taalibe léegi nekk na dëkk bu mag daanaka mel na ni ki boogal kanaa fii laa dëkk rek waaye foofu itam dëkk bu mag la foofu euh, moom daarul bayda laa ko tuddee mm-hmm. mag ñi nag ñoom jamono bi dëkk bi di nekk foofu guuba lañ ko ooyee daan ko doon oowee guuba man bi ma ñëwaatee sàncaat ko ma sansé tur bi def ko daarul bayda léegi nag foofu ay taalibe yu bari ñu fa foofu sax la ma waa Sénélec dimbal yóbbuwaat yóbbu nañ fa courant ñoom itam foofu itam gannaaw bi ma jëkkee sànce fii ci wet gi beneen dëkk ma tuddee ko Riyadil Fala boobu it moom moom daanaka lonkoon na ak boggal léegi euh, bi ma koy sànce fii ak foofu deux kilomètres la woon waaye léegi li ñu tere yeggante quatre cent mètres la noonu la alhamdulilahi rabbil alamin mbir mi day mbirum yàlla la ndax biñ koy tàmbale am nañ yéene mu toll fu fu événement di tollu Sénégal waaye takuroon ñu yaakaar loolu nag waaye am nañ yi amoon nañ yéene bi waaye gis nañ ne léegi ni muy doxee fa tabaarakallaahu ndax gox yi fasante ko ci Sénégal yëpp tey amul benn région boo xam ne wala benn département boo xam ne nitam nekku fi eeyi ah, te wakkuma sagnitami yimti wawi icci oppumo suude suude reesiyon gaylim reesiyon buneke lumu new new new bene dayira jogena fofu fiye ɓe mouritani ah, amna guine bisaw guine conakiri amna mali ñom ñëpp ñu ngi ñu ngi ñëw ci nekk ra ah, lu mu dee dee dee moom ay ay eh, daayira jóge na fa noonu lañ foofu la tolloogum léegi mhm. bitim réew nag tabaarakallah ñoom eh, at yi dama doon dem foofu lu bari di di eh, gisee ak daayira yi foofu mm-hmm. foofu itam noonu la eh, dem naa ci ay réew yu bari ci Europe bi dem naa ci Amérique itam foofu ñem ñëpp ñoom taalibe yi yëpp dañu am ay daayira di fi di fi yeble di fi ñëw